Any Jamiyatu Ansaaruddin Sénégal symposium international Mawlud Medina Baye 2024 muy am fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci résidence Abdoulaye Bayero këru gan ci Medina Baye mbokk yi koy def ci ndigalu xalifatu saahibil faydati tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma imam Cheikh Tidiane Seydi Aline Cissé imaamu ratib bu Medina ak ci kilifteefu Cheikh Mouhamadoul Mounhamine na Cheikh Ibrahima Niass président Cheikh ibrahim Niass manam tanku gu Cheikh ibrahim tanku won ci sunna tasare gum ko tasare ak dekkal gum ko dekkal mbokki programme ni nii lay tëddee àllarba fukki fan ak ben ci wéru septembre 2024 bu 16h30 jotee ci la ñuy amal cérémonie ouverture ci discours Cheikh Mouhamadoul Mounhamina Cheikh ibrahim Niass président Ansaruddin national taftal ci discours Serigne Alioune ibn El Hadj Abdoulaye Ibrahima Niass toftal ci discours Cheikh Ahmed boukar Omar Niang taftal ci discours njabootu parrain bi di Cheikh aboubakar Al Moussanna ibn El Hadj Abdoulaye Niass Serigne Mbaye Niass ridwanullahi alayhima toftal ci discours porte parole lu faydatu Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aline Cissé programme 11 septembre 2024 dina am panel ci arabe français ak wolof panel bu njëkk bi dimension diplomatique dans la mission de l'imam de la fayda Tidianiya maanaam xaymaab tëlluwaay diplomatie ci mission wu imam de la fayda Tidianiya Alhaji ibrahim Niass deuxième panel bi la fayda 95 ans après un état des lieux juróom-ñeent fukkeeli at ak juróom gannaaw bu faydu bi tàkkee ñettelu panel ñetteel bi kitaabu nafahaat alqudusiya bu cheikh aboubacar al musanna ibnu alhaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu ñeenteelu panel bi ci bés bu njëkk bi danañu waxtaane téere professeur oustaz ibrahima mahmoud diop bi ñuy wax risala ilal kuwet bi mu bind ci cheikh ibrahima ñas ak mazhabam ak jàngale cheikh ibrahima ñas ñu toftal ci juróomeelu point bi ñaareelu bésu symposium bi alxames fukki fan ñaar ci weeru septembre bu 16h30 jotee thème bu njëkk bi danañu jàngat kitaabu nujumul huda ci dundab cheikh ibrahima ñas thème ñaareel la production intellectuelle de l'école Soufi di Cheikh Ibrahim Niass di Nourul Kamal de Thierno Assane Deme liggéey bi l'école Soufi bu Cheikh Ibrahim ñas ñi jëlee jàngat boobu ci téere bi di Nourul Kamal bu Thierno Assane Deme ñetteelu thème bi analyse téere professeur Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop bi ñuy wax Risala ilal Kuwait beneen panel bi dinañ ci waxtaanee AES ak CEDEAO crise bi ci am ba jàngale lañ mën a jëlee ci jàngaleem Cheikh Ibrahim Niass pour saafara ko mbokk yi kon woote baa ngi mawlud Medina Baye 2024 di Cheikh Ahmad Boucar Omar Niang ñi jàpp ko àllarba fukki fan benn ak alxames fukki fan ñaar ci weeru septembre ci résidence Abdoulaye Bayero këru ngir lay ko mawlid international Medina Baye 2024 woo ñëpp ko kenn tardé. Muhammadu nurul xalqi